Sonko njiital parti bile di Pastef yoon teg ko loxo niki tey jile di aljuma moom ñaar fukki fan ak ñett weeru juillet atum 2023 cité kër góor gi lañu ko fekk anam ak force ndax buntu kër gi sax ñu ngi xamal ne dañ ko daj moom Ousmane Sonko mu mel ni di mujjee jot ci ay xibaar mu bàyyi ko ci ay avocat am modi dal nañ ko def li nga xamne modi garde à vue nga xamanteni modi tribunal bu Dakar ci kaaf ba fa la nek ku ne xamne ne fofu le lata mu fay génn war na fa janoo ak kile di procureur de la république procureur de la république génn ci ab communiqué di xamle sababu li tax ñu dal di teg loxo kile di Ousmane Sonko dañu koy topé bokk ci nga xamne modi metitel jëm ci ben asson bo xamanteni gendarmerie la bokku moom Ousmane Sonko bokk ba tey ci li nga xamante ni fës na ci communiqué procureur bi mu di appel à l'insurrection mu di ay kaddu yoo xam ne daf koy yëkkati ci ay image wala sax di ko jaarale ci internet bi di xiirtal ndaw ñi ngir ñu jog dal di indi ay jaamaarloo ci réewum Sénégal ku xam nag garde à vue doon na loo xam ne ku ñu ko def aljuma rawatina mu doon bisu férié samedi beeg dimanche amaana foofee nga koy paase kon amaana kon mbirum Ousmane Sonko lundi prochain lañ ciy gën a xam lu ciy gën a leer. abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnel ci Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. abonnez-vous Thiowli Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te woo Thiowli Sénégal.